jot li leen ndigalu sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi dañu gën a ci kër yi war naa leen sëriñ bi Mouhamadou Moustapha dafa wax ne ñu jox ndigal ba mu dara bi yëpp ne ñiy yëngu ci dëkk bi dañu gën a ci kër yi ngir war naa leen sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi nañu gàllu ci kër ngir war maale ko sëriñ bi sëriñ bi dafa wax ne ñii yëngu ci